asalaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information toujours un plaisir di ànd ak yéen ousan ngeen di àndal ak yéen wala sax jamono bii may wax ak ni mooy Pikine xam ngeen ni dañu waroon bëri le 13 ni daanaka 20 jours kese moo ci des tey ci euh, surprise si ñu bëree ñu daal di ñuy informer que comme quoi que ni Modou Lo euh, dafa maanaam dafa blessé du mën a bëree dafa am certificat médical xamante ni cinq jours la donc di information bi nga xamante ni voilà bi ñu ko toppee nag ko Nicolas dégg nañ ko ci yeneen i site wala sax suñuy naataango mu daal di confirmer information bi comme quoi que lamb ji dañ ko reporté ultérieurement kenn xamul kañ lañ koy defaat ndax euh, waa ji nga xamante ni moo waroon bëreeg Ama Baldé dafa blessé muy Modou Lo wax naa leen léegi ñu ngi bunt kër Ama Baldé fekk fi gars yi taxaw dañuy xool seen réaction nan la ñuy dundee information bi bi ñu ko déggee loolu la ñuy euh, waxtaanee léegi-léegi dafa mel ne fekk naa sama benn frère mu taxaw jàmbaar maa lay nuyu. maa lay fay maa lay fay tur bi naka la. Mbaye la Mbaye la. Mbaye si nga rek si bi. fii laa def waaw 100 pour cent kay hmm. bi nga yëgee affaire bi noo ko noo ko dundee. non met na ma trop barki Serigne Touba Mbacké. billaahi wallaahi wa taala ñun ñun waa Pikine dañoo bàyyi lépp barki Cheikhul Khadim ndax Ama Baldé lamb ji rek la ñu bëggoon à chaque fois du mu ko tëggee si lo loxo Modou lay yàqoo musul yàqoo si Ama Balde Ama Balde da koy yàgg a wax Modou Lo mus ko ñeme te lii firndeel na ko Modou Lo loolu mënu si dara Ama Balde mooy diriger di déranger parce que Serigne Sall bi fu mu ko fekk du ko may dara mais lu muy def nii na taxaw ñu bëre ko benn jour mu jeex. mais mais mais loolu day dal ñëpp ah mbër yàgg na préparé comment ba mu des sax deux jours mu blessé blessure mën na ñëw à tout moment. mais blessure Balla Gaye 2 chaque combat lan lay def blessure lay ñëw indi. Eumeu seen ba ko Modou loo fii di ko daan ah tànk bi dafa déchiré taxul ni dafa yàqul làmb ji du ko neexoon mu yàqul làmb ji mais deful lool dafa ñëw dëggal boppam gorom xam na ni tëgg combat dafa metti mais ñaata at ñu koy pare ñaata at ñu koy pare 2000 avant 2019 ba léegi heure bu yàqoo billaahi si loxo Modou Lo la wala Modou Lo moo koy yéexal day xaar mu pare pour mu jël boobi barki Serigne Saliou Mbacké du mës a daan booy bi billaahi wallaahi wa taalaahi ñoom ñaar ñu géewal leen si biir néeg barki Cheikhul Khadim ñu teg pakati miskit blessure gëmoo ko quoi su ko musuma ko gëm billaahi wallaahi wa taalaahi ko gëm te musul am mu loo blessé wul waxul dëgg barki Cheikhul Khadim nag waxul dëgg dafa def choc na génne oto bu mu defee choc na ko génne ñu gis mais dama def def nii choc dafa yomb quoi am na loo xam ne neexul si xol barki Serigne Saliou Mbacké du yoon quoi. jàmbaar maa lay nuyu saa itam dafa mel ne mer na de moom. billaahi ñun nga meree day ree quoi. barki alxuraanu karim li ma wax gars yi rek ama yee moo koy déranger saa waay ñun dañ dañ fay dañ fay teg lu leer daan ne xool ñoo fa teg jeexal tàq ñun combat bi dañ ko pare ñun combat bi ñoo ko moom si boppam ba ñu si woon dara saay saay dafa ñë dafa ñemewut gan gi da ko ñemewut moo moo gën mu taxaw naan ay damaa def blessé rek damaa def soog xamuñ li wala dafa demoon fanaanoog dafa fanaanoog yaay yaay booy bi di ñëw def loolu la nooy amee nooy amee combat saay nooy amee combat sax laa la wax naan da ngay taxawal si oto du entraîné ji mu topp yaay booy saay dafa fanaanu ji woon dara laalu ko dara jotu ko te bis combat bi déggoo ma de da ko day neex day naqari muy neex muy naqari ah da koy bëre muy neex muy naqari dina ko bëre bu soobee yàlla ndax boobaa ñun ñoo ñooy diriger ama yéeb moo koy déranger ama da ko ko wax si signature bi ne ko ama yéeb moo lay moo lay déranger tey Pikine gii gis nga Pikine gépp dañoo am lu leen metti billaahi Pikine gépp am lu leen metti tey bàkke alxuraan est-ce que mënuñu ko teg si cadre sport rek parce que sport tamit sport de combat booy entraîné à tout moment mën nga blessé tamit quoi qu'on dise quoi qu'on puisse dire loolu am na mais gis nga Balla Gaye Balla Gaye déggoo ma ne man du sama mbër mais billaahi wallaahi taalaahi sportif la day ñëw si làmb blessé day day bañ a yàq làmb day ñëw bëre ko ba mu neex tous fecc nga kontaan yi xam ne kii nii dangay xam ne sax sawaay mi day nekkul mais bu bëree nga koy soog a xam si moom mais waa ji ñëw bëgg a yàqal booy bi nekk si yoonam bu bëgg ko koy yàqal loolu du yoon. Jambar maa lay ziar bu baax. nga ko information bi nga ko yëgee. waaw métti na de métti na trop moom métti na trop bilaay bilaay walaay métti na trop. kon yaa booy bokkoo leen leen wax waaye ak sarak yi ñoom nee nañ saa yi day tapale dafa taw combat bi ñemewul. benn la rek lu mu wax ren la mu loolu combat bi da daw mais mu koy neex mu meti metti ama yeewi da koy déranger. mais àdduna neex la. mais fa ngeen tolloon ci préparation surtout loo xamante ne ay 15 jours 20 jours moo ci des. mais métti na trop prépara préparation métti nañ ko préparé ay ñaaraat combat ñu koy préparé jékki-jékki yàqu nii day métti gars yi barke Serigne Fallou maa dañ koy daan. dafa yaa gën a calme gars yi quoi moom jël nga ko philosophiquement quoi. non meroo quoi. mais taaliba Baye Karim bi moom na leer ne na leer ne yàgg-yàgg mooy yóbbu ndam li ñun Pikine lañ dëkk entraînement laa jógee nii ñëw c'est la ama dafa ni sans dara sans dara baaxam rek mën na ko ama mooy mbër mu taxaw ak yow nii man dafa ma bett parce que bett nañu bari parce que moom dala moom dalay bëree de carrière musul def lii c'est la première fois tey mu ñëw des deux semaines gars yi dajale seen i fukki dërëm ak seen i ñaar fukk jox mbër mi mais loolu mais loolu nag yàgg nañ ko dund si lamb quand même. non yàgg nañ ko dund si lamb mais moom mosu ko def parce que Modou amul lu ko leer moom xam nga la bëgg jàpp booy bi ci gàllaaj ba mu nekk jàpp na doo ko bëree loolu du am du am liggéeyu ndey day fay doom ama barki Serigne Bamba Mbacke li yaayam ci kër dina ko may roi des arènes barki Mame Serre Fall dañuy mer daba liggéeyal na ko te incha day am. yaayam di magam choqué ndax Modou loo wiri wiri jaari ndaari roi bi dañ koy dañ koy yenn fii indi ko këppaa faalaay day sonn rek xale bu ndaw la ko seeqal xale bu ndaw duma bëre duma daan ñibbi. donc yow blessure bi gëmoo ko quoi. amul sax amul na ñëw rek def yi fi góor def yi fi def Baay Faal mu jeex. mais mais loolu nañ ko dund si làmb soxna si yàgg nañ dund nit am combat mu des 2 jours 3 jours. mais bi dafa pur ndax xale bu ndaw la ko seeqal. xale bu ndaw la ko séqal yàgg yàgg dañ koy daan moo dina ñëw paa la. wala ngay wax Ama sa di courage te xam ne lii yàgg na ci làmb waaye Modou Lo dafa course dafa soxor na ñëw bëree làmb gi mu jeex na ñëw ñu dóor ko mu jeex. Modou Lo dafa blessé làmb def des jours nga da nga yàgg na ci làmb grand. taxaw ne Ama amul état bu baax moom mi am état bu baax ñu koy conseillé na daw làmb ji loolu lañ ko wax dawal làmb ji 10 ans bu ñëwee mooy loolu. pare ngeen pour xaar ko ñun. non mais parce que si la nekk fa ngeen bëri. lan ko leneen ci kattanu yàlla ñu ngi xool leneen mais amaana moom lu ñu def dafa ñaaw quoi boo ne champion nga am na wante ne waroo ko def sa àdduna yaa ngi dégg te Ama dafa nekk loo xamante ne billaay wallaay wa taalaay moom moo di comprendre sax billaay waaye ba ay ay ay ay ay deux semaines ay dafa feebar loolu du yoon wóor na Serigne Fallou. dafa def quoi lañu euh, gis nga àdduna ñett fi am. laam bi mbër yi bëri nañ de mais benn mbër rek am ci Sénégal muy pël bi ñëpp leen di riitil billaay wallaay dañ koy ñam force wër na yàlla xam nga riiti an na pulaar wala naa pulaar moo loo o dogi grand ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax la nuyu yow xamee nañ la bu baax a baax ci géwlu Pikine xam naa la dëgg la waaw mi noonu xam nga daanaka euh, am njàqare rek lañ lañ lañ def avant avant ngay présenté parce que wax dëgg yàlla combat boo xamante ne waaj nañ ko lu yàgg a yàgg yàgg ñu ñëw ba nga xamante ne li des matul weer nga euh, nga nga porté laa ko mën a wax. loolu nag daw combat bi la nag. li tax nga jàpp ne dafa porté malade parce que. ni Modou noonu ndax tapet ragal. mais la moo tax nga jàpp ne porté malade parce que am na certificat médical euh, donc loolu médecin yi ko bind quoi. dama ne yàgg nañ ci làmb xam na ni làmb tëddee. nit ki bu la jekkoo nga xam ne jour boobu du bisu ndam noonu doo ngay def. noonu doo ngay def jéem a sàqi nga jaar jaar ci porte bu ndaw bi wala porte bu mag bi waaye nag boo ci jaar du tee fenêtre bi lañ lay xaar rek gab la ndax nag doomu Falla gi def na li mu war a def lépp ci combat bi dégg naa benn xale bu ko wax léegi te wax na dëgg daf koy daf koy xañ teraanga waaye nag munul loolu nag na fexe ba xam ni yàgg-yàgg dina ñëw dina sëgg dina bëri waaye nag waru woon a def nii nag combat bu des daanaka deux semaines ah mi ngi noonu ma mais mais xam nga yow yàgg nga si làmb yàgg nga xam làmb ni muy dundee mbër yàgg na euh, war a bëre bu ñëwee sax suba la mu blessé. waaw me loolu lépp am na loolu lépp am na combat guy gi ak ak rëg-rëg ko bëgg dem ba ñu paree lu guy gi wax dafa blessé bëriwaat ak yooyu yooyu lañu war a war a bàyyi yooyu lañu war a bàyyi ci làmb di saltel ay victoire de yàmb la mais lii nag man loolu laa ko jàpp li ma la wax léegi rek daw combat bi laa laa laa jàpp ni loolu la ñu def te te waru woon a def loolu booy bi nag moom moom moom moom Modou Lo ndax ragal rek ko jàpp nag mais comme ni mu wax léegi dina bëri incha allahu rabi ci kàttanu yàlla te dinañ ko daan loolu moom bu yeboo ñu xam nga alors gis ngeen na ñi ngi fi nga xamante ni mooy buntu kër Ama Baldé gis nga gars yi dañu triste gars dañu am lu leen metti mais yaa ngi gis si kaw fan si club bi li ñu takk euh, fa teg jeexal donc lii la ñu bind euh, ngoon ngir doon waajal li nga xamante ni moom mooy lamb ji donc gis ngeen buntu kër gi gars yi ñu ngi mer gars yi ñu ngi ñu ngi triste quoi nekk sax si si si tellement que dañ doon préparer li nga xamante ni moom mooy combat bi alors euh, Fallou dañuy avancer da ah, jéem a xool bu dee sax mën nañ dugg si biir kër Ama Baldé ñu dugg bu dee ñu dugg tamit ñu xool képp koo xamante ni fekk nañ si buntu kër gi daal di xool ni ñuy waxtaan ak yow alors ñu dem dugg jéem a xool. soxna si maa ngi lay. dëkkandoo nga mag nga xarit nga yaay nga. waa dëkkandoo bu yàgg laa nag. depuis quatre-vingt-seize ba léegi maa ngi dëkk fii. boobu ama xale la. waaw boobu xale bu ndaw la. alors yow bi nga yëgee information bi euh, comme quoi comme Modou Lo combat bi mujj am dafa blessé noo ko waa def ñu metti nag. bett nañu lool mooduloo bett nañu torop waaw puisque combat bu toll nii doo ko am xaar ba ñu na la des na ay fan ah ngay provoquer sa bopp ay blessure rafetul loolu moom Modou waroon na ko dépassé moom lekk di naan di entraîner normalement la waroon di def waaye du di def loo xam ne dina la gaañ ba combat bi war a ñu war ko koo annulé nii ba kenn xamul kan lay doon rafetul. c'est 45 jours moom daanaka daanaka 3 mois la boo xoolee. moo du loo day day daw rek roi bi lay. war a récupérer waat si daanaka daanaka kon saison la combat bi di doon. Modou daal li mu def nii waru ko woon def bu dee dafa ragal Ama nag na xam ne yàgg yàgg dina dajeeg moom Ama Balde moom gaynde bu ndaw la mu ngi waaf rek est-ce que nekkul ni tamit peut-être xam nga lii yàgg na si làmb mbër dem bay waajoo bëri am blessure parce que blessure te amaana mën nañ njort ni war nañ am njort bu rafet ni teyu ko daal dafa waroon a moytu nag ay tey ko yooyu moom man loolu gëw ko dafa waroon a moytu Modou moom waroon na def la tuuba loolu du am comme ni Ama di moytoo waaw puisque boo lekkee avance danga war a sëgg bëre del sóoraale loolu rafetul moom métti nañu torop waaye ñun nag du ñu tàyyi ñu ngi koy xaar rek saa yu pare. est-ce que est-ce que betti bettu la bett na loola bett. Modou Lo bett na ma lool. mag bu ko yëgee bett na waaw bett na ma kay man fii laa taxaw may naan ama ah, nañ ko jox beneen mbër puisque mënul di xaar Modou Lo rek nañ ko jox beneen komba combat que xale bu ndaw lool mooy liggéeyam ah war a bëre ñu jox la sa xaalis nga def ko ci ay maamun ba mu jeex ba yaakaar combat bi léegi mu ñëw di indi ay affaire u gaañu ah ngay conseillé Ama parce que instant xaw na métti dina métti si moom tuuti. borom karaw bu ñuul moom ñàkkul dara Ama moom ñàkkul dara macha allah sant yàlla am na ngor te gore na waaw. Ah, alors ñu ngi jàkkaarloog Adama Balde di ci Ama Balde ñu fekk ko moom mu tegale ay tànkam Adama maa leen di fay di nuyu ñëpp ñu fi nekk rek. di am kontante rek waaw am fierté ci suñu mag yi te xam ne Modou Lo moom vraiment lu mu def rafetut du yoon parce que nit munoo lu ma trois ans nga koy préparer sa komba yàq ay millions desut lu dul 17 jours ñu ñëw nga ne da nga blessé wu loolu tamit ragal la noonu lañ ko mun a waxee. da jàpp ne ragal est-ce que jàppoonte moom blessure blessure la rek mën a gaañ. non da koo ragal. Modou Lo da koo ragal loolu dafa ma leer parce que dama xam sama mag dama ko nat seetlu bu ndaw bi daa màgg loolu la Modou Lo da koo ragal ama yee bi moo koy déranger lool lay bañ te da koy dégg ama bi ci kaw rek la jëm caatu fàllaay màgg na. bi nga yëgee information bi moom gëmoo ko quoi. ko ba fii ma toog nii di wax ak yow sa gëw ma ko ay ree la ma def. ay ree la ma def quand même affaire bi daf ma jëlee kaw non ragal la daal laa ko mun a waxee moom. tolloon ci préparation surtout loo xam ay 17 jours moo ci des 18. pare nañ lépp pare nañ fépp bu indee mbapat ñu mbapat bu indee xeex ñu xeex ak moom dóor ko daan ko indi ndam li Pikine. doon roi bi mais ñu ngi koy xaar bu paree rek ñun pare nañ kineloo ñu ngi koy xaar. doo Kiné Lo ñoo ngi koy xaar ne ko pare rek ñu ngi koy xaar Kiné Lo. lu tax duma ko woowee Kiné Lo daa noo warul daw sama daw sama mag ji tamit kii xale la ñëw jàkkaarloog moom warul ruux ah Kiné Lo warul daw ah man man man man man man kii su ma ñaan si woon damay bañ xalaatuma ko noo damay. bañ loolu ni mu jantalee nga la ñaan si. su ngay bañ ma ay milliards ma bañ. ñu ne Modou def soxna na mais mais mais mais gel man su may damay apprécier si góor dëgg ku mel ni Ama caatu Fallaye Ama yee fëgg dënn njaab loolu laa gëm mais 17 jours nga naan ay da am ay blessure da ngay dem France da ngay dem États-Unis mais loolu nañ ko seetaat nag lit na seetaat affaire yi nag vraiment ndax dafa metti nit kuy préparer combat ay at. di dem di ñëw di frais dépassé ay millions kon loolu dañ ko war a bëree rek mu jeex benn yoon parce que bëree foo la rek voilà. waaw maa gën a kontaan si yéen. naan leen ama yee rek incha allah mais mais mais pare nga pour mais ñun naan café quoi. waaw waaw. café ama yee. xelul xelul day góore ah. bi bi saful kinelo <laughs> ngay ama yéele du Kiné Lo ma xool Fallou bu nooyee barke yàlla bu nooyee ma xam ne da al jëlal jëlal xaaral eh bu ka xoolal café gi buy yolam may xam ne bii bi mooy bu nooy bi nag waaw daa ma xool waaw dama naag dama naag bu dëgër bi de Fallou Mbaye bi bu dëgër bi la macha mais kontaan nañ kontaan nañ. waaye ma gën a kontaan ci yéen merci beaucoup waay.